ay compteur courant yu ñu installé ci ay escalier wu fer ay ascenseur yu doxul ay bâtiment yu am ay lakk-lakk lii de la ñuy dëkk ci cité ataaya di dund ay satu samb moo nekkoon njiitalu association bi ëmb képp ku am appartement ci résidence ataaya bâtiment yi di lakk bâtiment 4 dans la nuit du au 4 mars dafa lakkoon ba tey fii ma toog di wax ak yéen ñi nga xam ne ñoo fa dëkkoon mënaguñoo dem ci seeni appartement ci loolu batiment 6 bii ci sama ginnaaw bërki biig moom itam mu lakk ba tey jii nii li ko dale ci suuf ba ñetteelu étage bi amuñu courant amuñu ndox bërki biig ba tey moom moomee nga xam ne depuis 2016 fa la dëkk moo ngi ñaan ñu daal di arrêté ki nga xamante ne mooy promoteur belge bi mi ngi tabax beneen euh, chantier au niveau de Thiès boo xam ne bu ñu alerté wul li xew fii mooy xewaat foofu donc il est temps que autorités yi jóg di xool tabax yi nit ñi di tabax ci biir dëkk bi. ak njàkkare le présidente bu bees bi di waxee. Racky moo ngi ñaax nguur gi. ñu daal di wax ci situation bi. dañuy déglu les autorités parce que tamit nag bu ñu demee ba sës lépp luy négociation diplomatique masi def nañ ko diggante ñun ak moom waaye ci loolu lay sukkandiku. ba étouffé batiment kat fii lakk bu mag Sénégal ñëpp yëg ko bu ñëwee day teg waxtaan bu ñu demee ba ca biir mu rocceeku lépp lu mu engagé woon mu dind si loxoom ba mu set wecc batiment 6 bii ñu nekk même chose ki démb dañu war a jàppale dañu war a jàppale. depuis 2015 la ñu daal di créer cité Ataaya. am na juróom-ñaari immeuble waaye lu toll ci 238 familles fa la ñuy yeewoo. ña dëkk nag ca cité Ataaya. tiit nañu loolu. ndax ak waxtu bu mu munti doon. court circuit mën na am.